scandale du jour de ce 29 avril 2024 ñu dem déglu kàddu yi nga xamante ne kii di le nouveau DG de RTS sax doon na ko yëkkati jëmale ko ci RTS te man nag ba ma ko déggee dama ne alhamdulilahi rabbil alamin li tax ma ne alhamdulilah nag ginnaaw bu ñu seetaanee vidéo bi dinaa leen ko wax. RTS amuñu benn mérite sunu alal. même les télévisions concurrentes dañuy jox RTS parce que dañuy fay facture courant amna devant redevance bu ca nek dañuy fay RTS gënul 2S gënul TFM gënul Walfadjri gënul dara des milliards les jël diko jox RTS RTS liggéeyu milliards c'est l'argent du contribuable nijel de jël diko jox RTS mu une télévision publique jour bu Macky Sall di recevoir euh, les leaders politiques la ci Covid bi Sonko ba mu wàccee bañ ko tendre micro dafa togn ko ne na li ban télé la mu ko RTS mu ko ah yéen vous là vous n'existez que pendant la campagne électorale. Racine Talla di guuxi la xekk di dindi la. RTS Abdou Diouf Bablay Wad c'est la même chose Macky Sall ñëw na joggati ko c'est encore pire avec Racine Talla c'est la catastrophe à la RTS. ay Babacar Diagne sax a parce que daanan jouer le jeu affaire un peu de fumisterie ah alhamdulilahi rabbil alamin yàlla yaa mën kay yaa mën yaa ëpp doole barki yonent bi euh, euh, euh, Pape Alé Niang waa RTS yéen fu mu nekk nii da ngeen war a ne asal alamin ndax waa Pape Alé Niang nee na RTS jubuñu RTS baaxuñu Racine Talla bon RTS RTS Macky Sall la ah yàlla ne ko léegi man damay weddi Macky day dem Racine Talla day dem waaye yëpp Pape Alé yow laay indi fi seize bi seize bi Racine Talla doon léegi yaa fay toog léegi na alhamdulilah bi tax ma wax ko xam nga boo nekkee ci kër nga ne kër gi nu mu mel baaxul man yàlla rey borom kër gi te yow nga war a doon borom kër gi. nga donnu ko ah na kon kër ki dina baax ma ne waa RTS nag ah opposition bi buux leen seen bagage jubali RTS te xam ne am ngeen fa représentant ndax seen DG bi da doon opposé te bu muy opposé dafa ni woon ba ci ki ko ba ci ñi ko nomé Sonko mu sell mi dafa ni woon damay nettali ndax moo ko waxoon chaque quinze jours dañ fay def plateau boo xamante ne opposition bi dañ fay ñëw léegi nag yàlla nee na leen léegi may naa leen lépp yéenay yéenay yéenay takk yéenay tekki yéenay diri lu leen neex yéen a koy def ñu jël nag ki doon kaas aussi si nga yàlla nag du def dara ci nen nag yàlla nee nañ du juum jël yëfu jëm dem ba doo ko Zeyna mm, du ko def mukk ci àdduna Pape Alé Niang li mu ñëw RTS sens la mérite la te gëm naa ni RTS réglé wuñu woon mais dinañu regle <laughs> Eh, yàlla baax na yàlla na xel de li may xalaat yëpp ah, RTS de man de xaamuñ jéem a xool laa postuler dem RTS RTS fu nekk ni neex lay dem neex ba nak neex mooy dàkk suukar ak lem barki yonent bi yéen yee yéen yéen ñi di critiquer Pape Alé Niang yi warutoo nekk yéen da ngeen di xaar Pape Alé Niang day dem RTS te day doxal ndax yi mu doon kaas yëpp gëm naa ne da koy appliquer te bu ko appliquer Hmm, avancement day am changement day am côté boobu après dinañ ne rupture am na parce que ba léegi gisaguñu rupture Pape Alé Niang doxalal doxalal doxalal kay ba tey ci seen.